asalaamaaleykum mbokk internet yi yéen ñuy seetaan sur 4 appui euh, wasaare lamb ak Kewel Info ah. am mbégte contentement kon niñ koy defee à chaque fois ah. euh, gannaaw nag euh, démb journée Mohamed muy Diamond Evans tëggoon combat boo xamante ni ci diggante Jackson Junior bu Géejawaay mbooloo ak ki nga xamante ni moom mooy Ahmed dem bu Thiaroye sur Mer mu nekk combat boo xamante ni nag ñëpp dañ ko doon xaar Ahmed Deme gëjoon naa bëre ñoo defaat retouram ci Jackson ñëpp ne Jackson dafa nekkoon ci yoon mu nekk combat boo xamante ne dafa am gis nañ ko di félicité nag ki nga xamante ne moom mooy Jackson di encouragé ki nga xamante ne moom mooy Ahmed Deme xam naa après moom dina si ñëw dañ koy bàyyi nag euh, ma seeg ki nga xamante ne moom mooy Baye Jili bu wasaare sama chéri defoon nañ ko daaw dañu fekke de woon dañu baaxantal ndax daaw ci heure bi <laughs> moo ma introsé woon yóbbu ma wasaare <laughs> Ahmed Deme maa ngi leen di waaw mais maa ngi leen di fay maa ngi leen vraiment am mbégte ah dalal leen si caaray géej vraiment maa ngi caaray vraiment kontaan naa lool seen teewaay vraiment. Mhm. di fàttali gars yi nag mois de mars ñun ñoo xewle moo tax xam nga suñu góor yi fu ñu fekk rek dañuy bàyyi ñu diriger mais xam naa ne moom ñu nekkatul mois de mars rek la ñuy diriger de ah <laughs> jili waa jili dañuy ñëw si li te moom mooy combat am ndax euh, am na loo xam te ne waxtaan nañ ko ci moom te gars yi nañ la répétition et pédagogique mais combat am ak Jackson mu gis ci côté préparation bàyyi jili Ahmed Deme ñu doon xaar retouram ndax gëjoon naa bëri trop ndax ku def 17 combats euh, ki nga xamante ne moom mooy Jackson kon li may wax bu defee 10 combats wala 11 combats fa lay moom lan moo taxoon mu jël Jackson choix boobu noonu. Hmm. waaw dañuy delluwaat rek sant yàlla parce que man dama wax ne depuis ba ma bëree ak Bruce ba léegi damaa toogoon di xaar di laaj ñi nga xamante ni mooy samay morom mais kenn nanguwul a ñëw si la def sorti na leen booy prouvé am fulla ak fayda non dama lay jël parce que damaa jóg pour compétir. làmba ji euh, temps boo bàyyee rek yaa ngi perte kon donc Jackson nekk champion nekk xale boo xamante ni comme ni ngeen koy waxee xale bu ne si yoon mais yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo nekk si ñoo bokk yoon bi ku nekk li nga bëgg mooy ndam am dem si dem si kaw. bu ma waxee loolu nag après ñu xool si lañ jëlee woon Valdo ñu préparé ba dernier moment mu yàqu ñu toogaat di ah ñu proposé ma Jackson ma leen pourquoi pas nan ko jël compétir rek waaw si lañ ko jël vraiment dem préparer si ànd seeg samay mbokk samay xarit sama waa équipe yi vraiment ñëpp taxawu ma jàppale ma nag vraiment ma préparé ka préparé bu doy waar parce que boo ma gisee demb rek di nga xam ne kii pare na combat bi wane aussi dara dara loo xamante ni yaa may dégg ñàkk respecté combat bi combat bi dama ko fonkoon respecté ko li ma prévoir li ma prévoir woon pour bëre ko démb après lépp dafa faussé non dafa posé parce que bëggoon naa tey ñu bëre bëggal amateurs yi xam nga supporters yi bëgg amateurs yi bëgg mais bi ñëwee si géew bi booy tamit daw soobu xam nga daw soobu combat bi combat bi jeex si ay seconde xam une minute mais bëggoon naa daal mu gën a neex waaw. bala ñoo ñëw foofu Baye Djily am na ay waaw Jax euh, maa ngi lay nuyu baax di la di la siyaar Ahmed Deme parce que Fatima wax na ko léegi. Mm. ci biir combat bi dañu gis Ahmed Deme bi mu ñëwee. caare gépp dañ ko uuf. mel ni da ngeen a booloo doon benn benn say. peut loolu dina doon pression ci yow ci làmb ji. wala lan la la mënoon def ci làmb ji jour boobu. waaw loolu motivation la ma def. vraiment xam nga parce que léegi sant pour cent caaro lan wax écurie yëpp danoo booloo ñu doon benn. Hmm. tey kuy bëree caare ñëpp ay génn supporters yi. Hmm. xam nga ñëpp ay génn parce que boo xoolee démb rek mobilisation bu mel noon gëj naa am ci hmm. combat Ahmed Deme. kon donc démb nag. ma ne leen lu mu métti métti tey damay am ndam. Hmm. wax dëgg fa yàlla te loolu laa duggaale bi si géew bi. Hmm. xam nga euh, li naan jaam ak pexem yàlla ak dogalam ni ma bëggoon mu demee dëgg dëgg demee woon noonu. Hmm. kon donc sant yàlla. waaw sant yàlla bu baax la. mën nga ñu expliquer nan nga bëre Jackson. bi arbitre sifflé ni ngeen langoo ak chute bi nu mu amee combat bi nu mu jeexee. waa bi arbitre bi sifflé damaa def un pas reculé. taxaw. après moom si la def mar si la def un pas daal di ñëw. comprendre nga si lan léewtooyee main droite ku ne téye say loxo si la miimee gauche rek mu daw daal di sóobu sama flanc bi. Mm. na damaa ne moom bon bëggul woon combat bi nekk combat bu diire. Mm. peut-être noonu la entraîné. Mm. mais man ku may xam-xam ku ne man samay combat may jël sama temps damay respecté adversaire voilà day diire. moom it nag xam naa ni ñu koy yabee ak ni mu waajee bëggul combat bi yàgg mais li ma bëggoon mooy ñu bëre ñu xeex bëre moo waraloon ma def noonu. Mm-hmm. waaw non def naa distance nax réglé naa bi arbitre bi door a sifflé un pas taxaw mais nag attention Jackson man magu ma ko mag boo xamante ni dama war di daw non non d'accord làmba naxante la comprendre nga naxante la mais nekkul loo xam ni damay arrière mu topp ma non man maa ko war a topp muy arrière mm. ay kilifa nag ñoo ñoo ma daroon teel teel dalal dalal xam nga mm. ma ma dégg seen digal rek xam nga. Hmm. looloo tax combat bi demee nii mais. combat bi li ma bëggoon dëgg ni nga bëree est-ce noonu lañ la conseillé ci combat parce que ñun ñëpp ci làmb ji dañ doon xaar Ahmed Dem mu ñëw may Jackson benn distance soit nga may ko deux deux yoo xamante ni di nga ko mën a lire saa yu doxee ñëw nga gis ko hmm. mais dañu jékki-jékki rek nga gis nga jege Jackson. li nga naan reculer nga pas teewul ni nga reculer bu Jackson dóoroon coup bi dina la dal. stratégie boobu nga bëree loolu lañ la conseillé. waa mooy li ma la wax rek dañ na ma ma taxaw xaar ka lu mu andi ah xam nga mbër moom saa buy bëree rek ñu ne si ginnaawam li lay mooy teel teel defal nii xam li muy lii. Hmm. teewul def naa loolu. reculer naa mais moom it daa marqué pas ñëw bi mu am miime góor mu daw sóobu moom moo sóobu moom moo waroon taxaw ñu neexal combat bi. Hmm. mais hmm. Mm-hmm. gis nañu ñu bari dañ ne Ameth Ameth Dème mm-hmm. amul doole dafa volumé mm-hmm. par rapport ak Jackson lan moo tax te tamit gis nañ mystiquement da nga focaliser wu ci mystique bi trop mais ci côté euh, kii bi euh, physiquement quoi volumé bi ñu ne da volumé bi doole bi amul doole xam nga mbër moom bu daanoo rek nit ñi dañuy wax gauche wax droite sama li ma la wax mais loolu moom mënu see ñàkk comprendre nga mais am na doole ak amul doole ah waroon na noo laaj Jackson rek comme te jot na noo roofoo ah waaw jot na noo roofoo mais boo daanoo rek ku nekk ak li ngay wax mais loolu moom ñun bañu na ko mm. te ku ñëwoon sama entraînement fekke sama contact wallaahi lazim ñi may daan fii booy Jackson mënu leen a daan mais lamba doy waar waaw mm. ah, lem lamba moo nekk loo xamante ni mm. non lu yéeme la quoi làmb ji dafa jeex ni àndoon ak yow. réclamé na première action bi Siteu am na deuxième action bi Siteu amul nangam nangam waaw nan nga gisee. avant action bi mu amee ba mu daw pour toxlu sama wet gi man na maa ne tey bu néewoon doole wala mënunoo bëree moom day man na damaa war na ma wala ma jaaxaan. Mhm. mais automatiquement man maa ngay créer parce que foofu ma egg sori na. maa ngay jéem a profité pour dabu ngembali mais sengoor gi laa téye mu naaw parce que sengoor yi duñ ko takk moo waral ma daw teg sama mais gauche daal di indi sama main droite nag si laa ko ko dóoree mu teg quatre appuis yi mais bi mu tegee quatre a yi ñun dañoo eggale action yi voilà ñun dañoo profité voilà moom dafa rëpp même yow tamit waaw man bi ma rëppee trois appuis laa def parce que boo xoolee sama pied droite maa ngi ko tàllal lépp maa ngi siy bàyyi maa ngi si bëre bi maa ngi calculer quatre appuis moom nag dafa rëpp bëpp comprendre nga man nag bi may profité di jóg fekk moom jog na moom xam na ne rëpp na moo tax mu daw profité enchaîné action bi. action dafa gaaw waaw dafa gaaw. waaw man maa ngi doon def nu ma ko dóore naa pour génn si. yaa ngi dégg sala daw palaaka ma fekk samay tànk dajaloo na. sala dóore sama fees bi. non sentir xam nga la ma doon sentir ma ko parce que ñun dañuy contact si diini ba pare ñun suñu place bi dafa bari suuf comme ni may déggee gars yi naan enceinte bi dafa bari suuf dafa lii enceinte bi bu gars yi sangoo surtout bu dara desul grand combat bi day kekke mhm. te mbër na faa tarxiis parce que suuf bi din la din daari tax loolu la gars yi dul bàyyi xel mhm. am problème mooy premier combat deuxième day fekk suuf si wow quoi bu dara desul grand combat bi day fekk yi sangu nañ si ba mu kekke mhm. est-ce que tamit yaakaaru ni Jackson daa am koo ko foogayul nekkul xeeb boobu ko xeex xeeb moo indi li ndax gis nañu yéen ñaar même ba ngeen taxawee ku xam dëgg dañ naan moom dafa la fekk ci mën mëninam ndax moom ay combat du duré te yow da ngay duré say combat day duré euh, loolu noonu nan nga koy jàngatee. ah li ma ko wax dëgg la de du ma moroomam loolu moom dëgg la moom parce que boo xoolee man fi ma jaar moom bokkul ak moom sax fi mu jaar man ñi ma bëreel daan leen ak moom ñi mu bëreel am na différence bu baax a baax a baax te wallaay loolu ma wax noonu lu dëggu si man li may wax rek naan làmb moo doy waar rek. looloo am mais Jackson du ma moroom wallaahi lazim maa ko dàq bëre te bi dee doole maa ko ëpp wallaahi lazim xam nga boo daanoo rek boo waxee rek nit ñi dinañ ne xam nga lim daanoo nangam nangam. mais nag amul benn problème. combat bi dañ ci am déception lu ma métti trop ni mu demee nii. combat bi waru woon a mën a mel nii quoi combat leer nañ loolu nag moo metti waaw loolu nag moo metti quoi Jackson mais nag yàlla baax na yàlla baax na quoi damay bañ a wax xam nga rek ñi nekka fi am na defet nangam nangam mais man gëm naa ne li ma liggéey non feeñul quoi waaw def nañ recours parce que CNG ñoom ñoo suñuy kilifa te ñoom ñoo teg seen sart teg seeni condition ñu ne ku def lii jël lii lii jël la ku dóor fees jël la ku teg kat appui jël la. Hmm. te a teg ah, tamit def nañ seen liggéey. Hmm. ah staff bi moom def nañ seen liggéey dugal na suñu recours. Hmm. recours te ñoom bu ñu seetaanee dinañ xam ne lii kat appui am na si. recours bi léegi mu génn nga am ndam ak ak ñu jox la défaite léegi fan nga jëm ci lamb. fan laa jëm ah. li ma waxoon dama ko siy wax dama koy waxaat. samay morom buñ ma nangu la jël bu nangu la bëri ak man. wallaay ma xool booy yi ne booy yi ma bëri ak ñoom. damay musaat ci booy damay musaat ci booy parce que hmm. waaw damay musaat ci booy parce que gars yi dañuy teggi ame dem xaw man lan moo tax dañuy teggi. Hmm. Ah, as bi xaarul ba pare boo toogee doo compétir xam nga mais Ameth démb bi nga simee ñu bari ci làmb dañu am surprise. Mm. parce que gëmuñu woon ni état de forme bi nga indi ak forme bi nga indi. waaw Ameth Dème dina ko indi. durant bi nga toog entraîné woo ci lan nga nekkoon. non maa ngi doon entraîné durant ma toog bëriwul ma maa ngi doon mm. parce que man du ma toog du ma du ma du ma du ma toog noonu rek di nelaw. Mm. man chaque jour dama leen dama koy wax sama boy yi. mbër sportif non da ngay entraîné quoi ba la fëggee man tey semaine mën naa si jël combat wala deux semaines. semaine laa la wax mën naa see jël combat wala deux semaines parce que à chaque fois maa ngi si entraînement yi. Hmm. dama koy respecté su ma amee combat tamit damay respecté adversaire bi man rus naa summeeku ñu naan non non non. Hmm. waaw man moom damay entraîné. Ah. waaw Ameth ñu gis nañu 100 pour 100 bi ñoom ñëpp ñëw nañu. Hmm. mais gisuñu fa ki nga xam te ne moom mooy Reug Reug. ak Coly Faye 2. Euh, lan moo tax loolu sa relation ak ñoom. Ah ah. parce que ñu ngi for ay wéyu béy ay genre kii yow mais sa relation ak Coly Faye 2 ak ak Reug Reug. non dinaa si Reug Reug nag mais du ma wax si Coly Faye 2 quoi. waaw ah, non du ma wax si qualifié de parce que qualifié sama rakk la amul mm. benn problème mais dinaa si cas de Reug Reug mm. parce que ñoo bokk yigiri quoi mm. Reug suma rakk la man man na maax ne maa ko yar li ne si moom man maa ko def man ñi mën a maax loolu Reug fii la njëkk a yëkkatee poids fii ba ni muy première lamb bi muy jël lamb simple fii la ko préparé ndax man xam nga man garage consigne lay liggéey soudeur la dama defaroon ay pois équipe bi yëpp fii lañ ko doon entraîné Reug wañ fii la njëkk xamee combat xaaj bi yëpp fii la ko préparé man maa ko doon entraîné bu ñëwee day fëgg sama fenêtre eh jógal ñu entraîné. Mhm. wallaay lazim ba yaayam dama doon na ma dénk la rek yaayam lu mooy ooyee séeri koko. Mhm. xam nga rek bu ma eh, sa yaay sama séeri la ñuy njëkk fii di bëre kap xam nga. Mhm. te ñun ñëpp mbokk la quoi benn deret bi la. rek démb fii la yendu suba ba ngoon. fii gaa nii kenn du ma bàyyi ma fen ñun yendoo fii ñun ñëpp ikiri bi yëpp. Mm. fii la yëndu suba ma ngoon. Mm. dafa nekk si yitte jàpp ma ne dama doxi sa yitte yooyu. Mm-hmm. moo capitaine capitaine daal war a bëri suba ma ne leen bu kenn ñëw ga euh, stade. Mm-hmm. ndax ñi leen di yóbbu ñoom mooy yóbbu loolu doy na. Mm-hmm. daa am si lu mu nekk nag si la dem doxi mais nag ñin ñi nag. bun ma gisul fi combat rek rek ñu andi problème. Ah, parce que damay voilà léegi nag tey bu ma demul woon di nga dégg am ñu ne. problème daa am te yàlla xam na ne problème amul. Hmm. wallaahi laazim rek combat ma guy gi maa ko préparé maa def lépp. Hmm. comprendre nga. Hmm. maa def lépp taxaw ko def lépp mais tey su ma ñëwuloon si jouru combat am. te am combat su ma ñëwuloon jouru combat am ñu ne xam xam nga. commencé détail loolu tax ma forcé dem si combat pour wan ne maanaam lépp nice. kon rek tamit bi mu xëyee démb fii la ñëw fii la yendoo man ak maa ngi moom suba ngoon mu conseillé ma waxtaan. ba nii kaf di def lépp. kon seen diggante dara ci. non jàmm salaam daa amoon démb ay itte yu mu nekkoon ma ne ko demal doxi sa itte yooyu. bu yàlla defee nga teel a nga daw ñëw. Mm. ayca léegi ñu ñëw ci xale yan xale nga jàpp ne trois combats yoo xamante ne ay xale lañ jàpp nga ni Ameth Deme war leen mën a may chance bëri ñoom. laay gote bal la. ak moo doonta. non non qu'est-ce ma fay bëreel moo doonta laay bëreel ndax daan naa fa ambulance. moo doonta si defee la jógee. Mm. nga ñëw nu bëri grawul acca yeggale hmm? ak kan ak kan yan nga gis ci xale yi. ñett xale yoo xamante ne. Ah. non bëri na bëri na ay booy mais xam nga làmb léegi boo cité mbër rek. non ñett xale da nga koy perte. mais kii kii ki bëri woon ak mbër lébu bi booy bi dëkk Dakar fii. tam ñuul nii ta gàtt rek non non de. double hmm? hmm? double moteur. amul problème. mën naa ñëw nu bëre ñu compétir. moom proposé woon nañ nga xam ne demee Hmm. ak ban ak ban booy bu fi ne. ak ban booy kii na de prouvé na. Ada Fass lan. mbay guy gi bëri na ak. Zarko échec mais ah. teewul ci xale yi bokk ci la. waaw ba tey mbay guy gi amul problème. Ah. Hmm. mais lan moo tax nga choisir xale. ah yaa yaa dama choisiral. ah mais parce que ñu bari dañ ne làmb daf la ciy commencé bàyyi est ce que nekkul loolu tax nga. Ah. man làmb nu ma fi bàyyee dem ma ku gis ni ma def. Hmm, neexal stade bi yëpp stade ba mu fees. Eh. làmb dama fee mën a bàyyi am dem ku def dix huit komba 18 combats laa def 3 défaites kese laa am am 15 victoires limal ma ban mbër mooy taxaw limal la 18. 18 lii am si 3 défaite. yombul yombul. Mm-hmm. samay morom nag ma peut-être dañ maa ñoo soxor pour pour jël ma. léegi nag say morom yooyu laa. samay morom ñoo nanguwul a bëri ak man Garga 1 moo ngi fii. Garga Mbossé yii Garga moom instant ñooñu waaw ay Garga ah. ah ay ay ay ay Yékini Junior. Yékini Junior men ñooñu ñëpp samay morom lan mais xam nga lan moo tax may jël booy yi parce que ñoom nanguwunoo ñëw. ngay ne mer la fanaanoo ci Tapha Tine la jóge am défaite Yékini Junior. non amul problème. mer la mer de. mais xam nga fi mu ne nii nag pakkastalu ah bi booy bi am nii rek dina tax xam nga rek mais nag incha allah dinaa ñëwaat ah. amaat benn booy bu saf ma jël ko retourné waat incha allah ah, waaw mais nag may tàggoo xanaa dinaa remercier gërëmal ñëpp gërëmal togg ceeb bi lekk nañ fi ceeb bu neex non madame mais madame moom nag ñu koy mais non madame moom mention spéciale ndax accueillir nañu jox ñu ñu lekk ba suur jox ñu ba pare di reetaan rek. waaw waaw jabaru mbër daal macha allah day yaatu. am nga mbër moom. Hmm. mbër li tax ñu naan mbër na teel am soxna. Hmm. dafa baax quoi. parce que boo xoolee bon combat bi maanaam préparation mel nii maa ngi koy doog a am quoi. maman bi ma takkee soxna ak léegi. Hmm. wala lazim boo xoolee suma ma entraîné damay fekk lépp pare. xam nga mu toppatoo ma bu baax a baax a baax vraiment maa ngi koy sant waaw. Ah. waaw toppatoo na bu baax parce que boo xoolee force bi ma am ak yëpp moom la. lépp madam voilà. Ah, macha <laughs> ak sama goro yi quoi. ak ak sama sama goro yi ñoom it asalem. ñoom it xam nga def nañ kaar lañ def ñëw. Ah. vraiment maa leen di sant bu baax waa asalem ak sama goro yi. vraiment di sant sama ndijaay Papa Ndoy vraiment. mooy paa bu ñaaw bi gis nii. ah <laughs> di sant nag staff bi. baa mm. Baye Mandiaye Ndour président xam nga maa ngi koy sant bu baax ak staffam mm. ndax da si sonn depuis lor xam nga ñoo ngi ñëw di taxaw xam nga Assane Ciss vraiment moom it amuñu fayam daanaka kaari fi noonu moom moo ko vraiment maa ngi sant ñi nga xam te ni ñooy staffu Ameth dem bi yëpp ay ñoom taalibe Cheikh man li may faral di wax rek ah taalibe Cheikh wallahi alazim isa marière ak ki nga xam te ni mooy Bamako wallaahi lazim laa lay giiñal combat bi danoo jël ay million def ka si. Hmm. barke Seydouna Mouhamed. loo tax aw ma woon dara lu ma doon xalaat lu may stressé si combat bi danoo jël xaalis weex tal na ma am. wallaahi lazim dugg nag fu ne mais nag ñooñu aw ma seen fay dama leen di bàyyi ak yàlla. li naan doomu ñay kenn du ko ñaanal ree dan nga ñaanal gudd fan. Hmm. maa leen ñaanal gudd fan. ndax vraiment nin ma taxawoo rafet na. ah di sant nag sama waa Ikiri. waa Ikiri bi wallaahi lazim xol lan ma doon jàppale. pour bëgg ma am ndam mais nag sant naa ñëpp di sant nag sama monsieur le maire hmm, maître Ndiaye hmm, Ndiaga Niang hmm, père Bassirou Sow Djiba père Arona Touré vraiment man ñooñu aw ma seen fay ñoom ñëpp dan maa jàppale si combat bi di sant nag sama père Teyrouane sama moom à chaque fois saa ma ko woowee rek ti seet xale yi di sol yëpp moom moo koy def. Mm-hmm. xam nga te du ma ko jox benn dërëm ba pare yëkkatiwaat xaalisam ak ay conseil mm-hmm. vraiment maa ngi sant di gërëm ñëpp waa Thiaroye moom mention spéciale mbëri Thiaroye moom. Mm. yàlla laa leen di bàyyil. vraiment ay ay ay amen nengeñ <laughs> waaw eh kooku kooku kooku man yàlla daf maa booleeg moom quoi. moog isaapo yi vraiment ñoom ñoom mention spéciale donte ñëpp laa si jàmm. Mm. ay Ousmane Diop ah. ay Xarim Ndiaye un Ndiaye deux. wallahi lazim mais ñoom vraiment ku leen gis démb rek xam ne yéene nan ma quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. vraiment di ñaanal capitaine suba lay bëre yàlla na ko yàlla may ndam. Mm-hmm. di ñaanal Pamboj day bëre la vingt moom it yàlla na ko yàlla may ndam. ko amul combat yàlla may leen ay combat. vraiment di sant ñoom Zera. ñoom ñoom ñoom Habib. Idoro Baas bi nga xam te ni daa jógee ba Ndar. xam nga depuis quinze jours moo ngi fi pour combat bi. Hmm. vraiment aw ma seen fay di sant ñoom Moussa Diaw xam nga waaw kër gi sama sama rakk yi ak sama mag yi hmm. aw ma seen fay di ñaanal nag sama yaay suma sëriñ hmm. yàlla gudal fanam vraiment ndax depuis sunu papa gaañu yàgg na mais teewul tey mu ngi <laughs> wallaay. Ah, am na solo jigéen bu jàmbaar quoi. waaw hmm. ah, sama yaay man ma fayal. loo wax di ko ñaanal rek di ko souhaiter. di ko wax mu dund. Hmm. li si moom. ndeysaan ci làmb la bokk ndax des fois mbër wax ba xolam tooy mm-hmm. parce que mbër yi saa su ne rek soxna Fatima sama yaay li ma yéene si moom dafa ko fa ko quoi mm-hmm. maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam mm-hmm. saa su da nga koy dégg rek ñu koy wax mbëri képp koo ci wax rek li mu lay wax mooy dama bëgg a teral sama yaay uh-huh. dama bëgg a teral sama moo tax saa su rek dangay xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk li ñu bëgg ci làmb xam dem wax na tudd yaayam mu nekk parti boo xamante ne xam nga mbër lu ko jooyloo yombul mais bu tuddee yaayam jooy rek mooy wane ne li muy wax dëgg la ñu ngi koy ñaanal lépp bépp mbébét bu mu am ci waajuram yàlla na ko yàlla kàttanal dooleel ko ba mu defee ko noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax di sant waa fi may toog vraiment gars yi ñoom ñoom def na lu ma bett quoi vraiment. lu hmm. yëkkati xaalis bu bëri. Hmm. ñëw andil ma ko loolu nekk surprise si man muy ñoom Doudou ndooy hmm. ñoom Mansour ñoom Idrissa. Mbaye Sarr. Euh, ak yeneen boy yi vraiment ñëw nañ fii def mobilisation. vraiment xam nga sant naa ñëpp ñoom Sine Mbaye gars Arona. ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen. saal bi may entraîné nag mooy Cheikh Niang Cheikh Niang oma fayam moom it. fa laay entraîné mais teewul tamit dafa yëkkati ay moyen xam nga ñëw teg. vraiment li ma mënoon rek mooy andil leen ndam lu leer mais nag sant yàlla. Hmm. comme te demee na nii site bi man na maa ne deux sites la dañ ko séddoo. bu njëkk bi joxew ni ko mais bu mujj bi lañ joxe mais teewul def nañ recours lu nu yàlla may rek après ñu sant ko yàlla ñu ne sportif lañ te gëm nañ yàlla quoi. Hmm. incha allah di ñaan yàlla sunu yoon bii di ñëw yàlla na gën a leer di ñaanal Jackson tamit xale la. Hmm. mais xale bu ne si yoon la maa ngi koy encouragé fi mu teg tànkam foofu la. yàlla na yàlla leeraloo yoonam. vraiment di ñaanal rek rek li ñu yéene si moom. wallahi lazim yéene naa ko moon di caaree gii roi des arènes. ñi xamul nag ñooy ne fii détail mais caaree comprendre nañ léegi xam nañ ne ñun ñëpp on est ensemble. waaw ñun ñëpp on ensemble Reug suma rakk la te sama rakk lay ma sa doon li ma def si moom yàlla moo dogal ne man maa ko def si moom moom fu mu toog war na kaa mën a wax firndeel ko nit ñi ñu gëm loolu. xam ne maa moom suñu diggante dara ne si. waaw mais nag maa ngi sant waa caaree di sant ñëpp di santa Mandiaye moom suba incha yàlla na réussir. aw yoonam yàlla na réussir moom day tëgg fii si koñ bi fii. Ah, moom day way quoi. Ah. Ah, day way sama goro la moo takk sama rak mais yàlla na yàlla leeralu yoonam. macha allah maa ngi sant ñëpp di sant tamit yéen ñi teew maa leen di sant bu baax. jaajëf kontaan nañu. jàmbaare jàmbaar dem jëba tukulóor kee teral yaay jë kee bëgg yaayam doo masa daanu ndax liggéeyu nday boo taree daatu doom yaay moo lay wàllu buur gay gànnaay samim boo ñaaw gay gànnaay samam Sidi Asu fooy jaar ba ñaaw ndooy yëpp maari mbaram ndooy may xaraak baay biram ndooy ajaratu mbayeng ndooy sa yaay ajaratu mbayeng ndooy alaaji dam ndooy baay ba alaaji dam ndooy ajaratu faagay ndooy mooy baayu alsan ndooy mi ni jooy to noppeeguñu baayu alaaj njaay di baayu papa ndooy baayu abib ndooy amet doo masalaal suuf ndax dangaa teral sa yaay ndaw bu nekkee ci yoon teral yaayam doo masa daanu teral sa yaay bu dee joxe barke kenn du la yërëm ab met sigil sa yaay bu dee joxe barke kenn du la yërëm alaaji abib demay sa baay dem nay waaye bàyyu fi gàcc benn yoon ñu la sa baay bàyyee ci ngor ak fit ak fulaak fayda mu ngi ci yow billaay waat naa ñu ngi sa sa yaay ñaanal na la ndax ajaratu Mbayang Ndooy jigéen ju man góor la xanaa xamuloo ni yaay ju baax bu dee nampal doomam da koy xool ajaratu Mbayang Ndooy dafa liggéey ci kër baay te muy digg mag ñi naan liggéeyu ndey ci doom mi nda mu ñu yaxanal la doom jaay ju du maas ko bul tiit bu ragal barki Seyduna Muhammad mi ngi sa gannaaw bu may wax sa sama xol day tooy ndax da ngaa teral sa yaay barki Serigne kër Si bu may wax sama xol day tooy gars yi man foofu laa mën